salaamani la

Kawsara bu Sërif Asan Fall di barab boo xam ne bi Sëriñ Amdi Yaasin Fall moo ko sanc ah saxal fi ak njabootam def fi jàkka ah ak mbaaram jàngukaay indi fi taalibeem yëpp ci ndigal sëriñ Saliou Mbacké ndax Cheikh Saliou Mbacké de moo ko wax ne ko daa la wutal barab boo xam ne bii dina man barab boobu jàngukaay di fa wéetal yàlla ndaxam xam naa alxuraan rek mooy sa bëgg-bëgg kere bu sëñ Saliou yeblee ñu jox fii sëñ bi la war a mat ñeent fukki pàkk ak nangam sëriñ bi lim tàmbalee jàkkale fi njëkk a naal naal fi kër ak boppam mooy fii ma taxaw la ca des moo woo ay taalibeem yi nekk ndakaaru ak Banjul ak Casamance ak feneen kenn ku ne mu ñëw mu ne la kër a ngi nii li ko wër lépp ci barab bi taalibi sëñ Amdi Yaasin Fall lan mu soxoy sëñ Fall Fall mu ne fi ak loolu mooy barab bi ñuy tiim tudde ko Kawsara di Tuubaa Ngiraaneen ki ko déggut war nga koo xam saa su nekk nag daara yaa ngi fi ñetti daaraa ngi fi yoo xam ne yi njabootu sëñ Amdi Yaasin ñoo fi taxawal daara ju nekk boo ko xoolee lu juróom fukki dongaa nga fa wala juróom benn fukk ay tuut tànk yu jàngal xuraan ak jàngale te njaboot sëñ Amdi Yaasin rekk lanu ndax seen waajur woo dey alxuraan la xam moom lay jàng moom lay jàngale ak liggéey mas na toog di waxtaan mu daat ne Souleymane ma ne Faal mu ne fii ñu ma indi dey fa ma jóge merewun ma waaye fii ñu ma indi it ma kër Cheikh Fall la jóge waaye merewuñ ko kër sëñ Tuubaa la tàbbi waaye jéppiwuñ ko looy nag doxin woowu nag moom la sëñ am doon dox ba kerem wàccib liggéey ci digg këram ga ca Touba jàkkaarloog jumaa ji dem bàyyi fi doomam ju baax ji ñuy wax sëñ Fallu Fall moom sëñ am di yaasin fa bàyyi bu tànkam mu teg fa tànkam oof rakkam yëpp ak njaboot ak taalibe yi di dox doxinu bàyyam ba kenn ku ne xam ko cib yar ak i teggin ak nungoo liggéey ak ak uuf njaboot gi góor ak jigéen mag ak ndaw kenn jooyut sëñam dees yi ngir sëñ Fallu yàlla yàlla guddalu fanam te wéral cëram te yàggal ko fi taalibe yaa ngi nii jigéen yi jëwri yi daal yi daayira yi tàmbalee ñu nga xam bu liggéey amee ñoo koy liggéey ñoo lekk nii muy jigéen ñi soxna Faat Jaay jiitale ak ñim àndal ak yeneen daayira yoo xam ne ñu nga Kawsara ak Touba Fall ak dakaar ak Banjul ak Tëngéej ak Xombal daayiri ak Jatmel ñëw ñëpp seen daayiri daay ñëw bu soobee yàlla ngir bisab Cheikh Abdou Lahad Mbacké gi sëñ Fallou nag bis bii dafa wax ne bis gënu ko ñor ndax baayam xaritam maamam nijaayam di sëñ siirim sëñ Abdou Lahad Mbacké di sëriñam jox na ko ci cër boo xale ne bii benn cër gënu koo màgg bisu sëñ laat bi te fonk ko yéel ko ñëpp ak say bokk sëñ Fall nee na man na bokk xamu ci kenn ku ne njabootu Cheikh Rafal mboolem ko ma bokkal Cheikh Rafal mboolem ku ma bokkal Serif Assane mboolem ku ma bokkal kër sëñ Modou Ablaye Fall mboolem ku ma bokkal kër sëñ Modou Aminta Fall ñëpp tàllal naa leen lu ndax bis bi du soo bis suñ bisa nun ñëpp te bu ma ci amee ndam ñu am ci su ma ci amee leen ñu am ko ci kon nan xam ne bis bi ñoo ko bokk nun lañ ko jox na ci ñëpp jàpp woo na ñëpp nag muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw taalibe ak gan ak ab xarit ñëpp la sëñ Fallou woo ci bisab sëñ Sidi Abdou Lahad bi nga xam ne moom lañ bëgg a taxawal am na pas-pasam nag def ci yéeneem waaye na mu ko bëggee sax maliwuñ ko waaye day ñaan ci barkeb sëñ Sidi Mbacké mi ne moo ko jox ndigal li mu yàgg koo màggal téeméeri at te ànd koog sëñ te fa mu ko bëgg àgg mu àgg fa ba sëñ siidi bu joxoñatee rek lu man lu ne mu def ko ci ndax moom day wolof dafa wax ne koo xamul noo noo koy def nam la def rek a tax waaye sëñ siidi de def na ko noo xam ne bëgg na àdduna bépp xam ne li ko war lépp digga moom moom moom def na ko moom kon mi koy xamal ay bokkam di ko xamal ay taalibeem bis bi nag ñor na ko ñor xom démb ci àjjuma leen tàmbalee bu penc mi aka nettoyé kër yi aka pompe aka aka vidéo wanag ngir bañ kenn ko am lépp def nañ ko ba démb ci àjjuma ji tey jii la ñuy eggale mbuub mi ak mbale mi ci la jigéen ñiy lekk ñu ngi nii kan ku ne war koo gis ñii xar matt maa ngi nii di xar matt mi ñeneen ñaa ca waaju di xar eh, di xar mat oto bi jëli na matt mi ngi ñëw gàtt yaa nga nee ndawal gaa nga nee lépp na sëñ yëpp la jaral na ko ab tàmbali rekk la waaye yéeneem su sayen gétt lay jiital teg ci loxol sëñ siidi mbàkke sëñ iblaat ne ko ma maa def lii waaye nag amu ko waaye mi ngi koy ñaan sëñ siidi mi nga xam ne lu yàlla yàlla defal ko ko sëñ yàlla gudd fan yàlla na yàlla fi yàgg ak sëñ fallu yàlla bu saytaane dox seen diggante